jërë ngeen jëf mbokk yi nuy teewlu ñu ngi leen di nuyu leen ziare di wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee jagleel ko mbënn mi ci dëkk bu sell bi di Touba. lépp di bàyyi ko ci kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho di kuréel goo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalif général des mourides moom moo ko taxawal mu ëmb Touba ci kanam Hizbut ak commune bu Touba. wa jannatan li saalikin muridi wa yi dañ koy dooreek équipe technique bi nga xam ne moo nekk ci biir kuréel Junatun Liman Nazamaho di amal liggéey bu am solo saa su ñu ngi sur le terrain di dem di xool nag naka la ñuy mën a génnee ndox mi nga xam ne moo nekk ci mboolem quartier yi nga xam ne dañoo indee ci dëkk bu nga xam ne moom moo di Touba ñoom nag kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci équipe technique boobu di Serigne Cheikh Gueye am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci liggéey bi nga xam ne ñu koy amal sur le terrain ñu ànd teewlu ko. ma fi ma taxaw nii ba ci station ba Daaru Xudóos bi amul kër gu fi dul am ndox fii nag bi ñu ñëwee def étude bi def état des xool xam ne fii ndox mi ay caaxaan jëlewu ko fi dañoo dem indi ñeenti moto pompe yoo xam ne benn bu ci nekk dafay sotti 600 mètres cubes par heure ñeenti koñ yi ci nekk ci koñ bi ñeenti xibla yi na ci koñ bi fu nekk ñu teg fa benn moto pompe. moto pompe bu ci nekk ñaari ci gën a sori distance bi c'est 600 mètres la lay jox pour mu mën a àgg ci réseau bi bi ci gën a jege dina la jox 300 mètres pour mu mën a àgg ci réseau bi ñu utaat yeneen 10 pompes yu ndaw yoo xamante ni yenn yi waa koñ bi ñoo ko moom ñoom ñooy bu saa bu ñu demee ba am jafe-jafe ci gasoil wala lu ci toll fu mu ci toll rek daf ñuy woo ñu indi leen gasoil bu dee essence it ñu leen essence ginnaaw kër solution bi am na benn pompe bu fa nekk fii ma taxaw di yow benn pompe a ngi nii buntu kër xaadim gi am na benn pompe bu fa nekk beneen pompe mi ngi nekk ca côté station Selba station Sayer Gueye bële ci wetu station Daaru Xudoos boobu foofu la beneen pompe bi nekk mbooleem kër yi fi nekkoon nag yëpp amoon ndox waaye nag suñu borom dogal na ni fi mu ne nii moom alhamdulilah kër yëpp wàcc na li ñu permettre loolu nag euh, waa koñ bi jàpp nañ ci bu baax a baax euh, fii boo ko doon à peu près daf na 300 villas ñetti téeméeri kër yoo xamante ni maanaam am na ndox yoo xamante ni moom mën naa la ni war naa kër gu ne mën naa la womat ba dugg la ci kër googu. te yëpp wàcc na fim mu ne nii te lu ko waral moom dëgg la. ñun jàmbaar lañ waaye ñiñ fi fekk wax dëgg yàlla ay gaynde lañ ndax ñun suñu liggéeyee ba vingt jot dañuy wàcc hmm. su may wàcc dama la leen machine yi jërul muy fay hmm. continuer leen ni ngeen dawal heure bu ngeen sonnee ngeen fay muñ xëyee ñëw taalaat muy pompe yi pompe yu mag yi dama koy bàyyeek ak ñoom pompe bële tamit dama koy bàyyeek ak ña fa nekk ba nekk fële tamit am nañu ma fa bàyyi bu ci nekk koñ bu ci nekk am na ñoo xamante ne saa su may wàcc dama leen fay bàyyi ni leen doxal leen heure bu ngeen sonnee yéen ngeen wàcc waaye pompe moom lu ngeen soxla rek wax leen ma ko moo tax ñu mën a am résultat bu ñu am fii résultat bi ñu am fii tamit moom lañ am la même chose daaru minam mhm. boo demee daaru minam fi mu ne nii daanu ci ay kër ndax foofu moom lu ci bari miiri dafay daanu ndox mi dugg ci kër yi mhm. mais na foofu tamit sollicité nañ ko mhm. fa laa jógee ñëw fii direct ndax pompe bee fa nekk ci kaw fa la nekkoon am na yeneen ñaari pompe yoo xam ne ñu ëpp bee doole yooyu ña fa benn ba moom ma ngay daw fi ne ci kaw tali bi ndox bi gi yëpp di ñaan suñ borom defal ñu tawféex ba yéene ji nga xamante ni moom la ma Cheikh Mamadou Mountakha am ba boole kuréel yi mu nekk benn suñ borom defal ko ci lu kawe njortam mu nekkoon kàddu Serigne Cheikh Gueye yi nga xam ne yëkkati ko doon indi ay leeral ci li nga moom moo dee liggéeyu équipe technique bi nga xam ne ñu ngi koy amal sur le terrain ngir jële ndox mi nga xam ne moo nekk ci quartier yu bëri fii ci Touba Mbacké mbokk yi am na quartier yoo xam ne ba léegi ndox mi ma nga fa des bokk na ci quartier Touba Soura ñoom bari na kër yoo xamante nii seeni eh, boroom génn nañ ak seen njaboot ndax ndox mu bëree bari moo xam ne mi ngi ci boobule quartier ba léegi loole moom moo tax kuréel gi nga xam ne moom di junnatun liman nasamaho déplacé wu nañ dem sur le terrain xool quartier boobu naka la ñuy mën a def ba jëlee fa ndox moomule waaye sur place fekk nañ fa ñoo xamante nii am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko di eh, ñëwaat rek ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci eh, boobule quartier ak ndox mi nga xam ne booba léegi mi ngi fa ñu ànd teewlu ñenn ci ñoom. depuis màggal ba léegi ñu ngi jafe-jafem ndox ndox mi mi ngi sonal kër yi kër yu baree bëri génn na fii li fi nekk ci kër yu bëri yi génn ci bëri na trop ñu ngi wax sax am na kër yi koo xam foo xam ne nii fii dañoo wax jaan dafay nekkoon bi mu dawee xamuñu fi mu dugg ci biir ndox mi kon fii ñu ngi ci dansé ci dansé lañ nekk euh, ñu bëggoon nag ku ñu dimbali ci ndox mi nu ñu def ba mu génn ñu fi nekk ñëpp daanaka feebar nañ gën a wàll gi feebar nañ li fi génn ci kër moom mënu kenn mënu ko wàññi moom boo xoolee fii ba sa bët yam lépp ci am ndox lañ nekk te ñi fi nekk ay néew ji doole lañ maanaam li tax ñu néew ji doole mooy mënuñoo génne ndox mi di ko yóbbu feneen waaye ku nekk mën ngaa defar sa kër waaye ndox mi moom li ko fi mën a génne borom doole ko fi mën a génne wala état kon ñu ku ñu buñ sañoon ku ñu dimbali ba ndox mi jóge fii ci carte bi ñu jël. waaw kuréel bii nga xam ne sëñ Muntaxa ko taxawal muy waa Junnadu wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na lool ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di leen ci sant di leen masawu tamit ci coono yi ndax sonn nañ ci lool ndox mi nag wax dëgg yàlla sonal nañ ñu lool buñ sañoon nit gis ku ñu ci dimbali ndox mi bii ci mbedd yi daal mooy dugg ci kër yi bu bu set ñu ngi ngacc machine baa ngi ne tege buñ ngaccee ba bàyyi bu guddee mu ñëwaat sonn nañ ci lool ñu ngi ci nag tàllal loxo ngeen dimbali ñu ci. taw bi mu tawoon sax surtout bi mu gàmmoo ba noppi moom fépp moom boobu sax am nañ semaine boo xam ne gone yi si wuñ waaye nag bi ma gisee ñu junnatu tàmbali seen liggéey bi daal daanaka ñaari fan ñett gone yu bari mën nañoo ñi ngi jàng si ba amaan na sax ci daara yoo xam ne ñëwoon nañ fi di jàng si ci ginaaw bi ba ñoom it eh, seeni daara ban ngàcc nañ foofu ba ñoom ñu delluwaat seeni daara kon loolu it eh, day wane ni rek junnatu moom liggéey bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi dénk eh, ñi ngi ci am taxawaay bu am solo. kuréel gi nga xam ne moom moo di uh, Junatun Liman Nazamaho am na commission sociale boo xam ne ñoom ñoo yor lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllum recasé ñi nga xamante ni dañoo génn seen kër yi te fu ñu nekk ndeegum ndax na famille yu bëree bëri yoo xam ne jot nañ leen a kër yu ñu nekk ndeegum fi mu toll nii laataa ñuy génne ndox mi nga xam ne moo nekk ci kër yañ jotoon a nekk ba tax na ñoom nag uh, am na kàddu yoo xamante ni kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk commission sociale bi ginnaaw bu ñu recasé ay famille am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko muy Serigne Khadim Gueye ñu ànd teewlu ko. ku ne xam ne ndox mi ba mu wàccee ba jamono ji may wax ak yéen nit ñu bare bare nekk ci dëkk bu sell bi di Touba am nañ jafe-jafe dëkkuwaay loolu nag moo taxoon commission bi nga xam ne mooy commission sociale am benn numéro yoo xam ne teg nañ ko ak ñenn ñoo xam ne ñu ngi ñëw kër Serigne Touba ga di bindu képp koo xam ne ñëw nga dafa am soxla soo xam ne moo la tax a jóg am na ñoo xam ne bu ñëwee ak dund moo leen tax a jóg am nañ bu ñoo xam ne bu ñëwee seen force bu yàqu leen tax a jóg am na ñoo xam ne bu ñëwee problème faju moo leen tax a jóg am na ci ñoo xam ne bu ñëwee nag jafe-jafe jafe-jafe yi dëkkuwaay moom mooy tax ñu jóg lii may lii ñu nekk suñu ginnaaw nii jafe-jafe la ci jafe-jafe yooyu mooy jafe-jafe dëkkuwaay kër gi ñu nekk nii benn mbo benn mbokkam taalibe moo ko jël abale ko ci disposition yi nga xam ne mooy décision commission sociale su ko defee mbokk yi nga xam ne ndox mi nangu ni seen kër ñu mën leen a dem jëli delloose leen indi leen recasé leen fii ak léegi nag ñi ngi ciy liggéey liggéey boo xam liggéey bu mucc ayib la mën naa ne nii may wax yow euh, six familles ñu ngi fi famille bi famille yi buñ ko évaluer mën naa ne daanaka war naa mat cent yoo xam ne nii ñu ngi ci biir kër gi di fi yeewoo nga xam ne ci condition yu am solo lañ nekk kër gi boo fi ñëwee lépp mu ngi fi am na courant am na ndox am nay ventilateur am nay matelas da ngay ñëw rek yow dugg su ko defee nag li ci des ñu bàyyi ko kilifa yi nga xam ne ñoom ñëwee liggéey boobu su ko defee ñu xool dund gi nga xam ne moom tim moo ci war topp ñu indi ko mbokk yi ci fànn googu lañuy ñuy desandi ba léegi ndax euh, njaboot googu nga xamante ni utal nañ leen fuñ nekkandeegum ci jamono bi ñoom nag sant nañ bu baax a baax euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalif général des loole nag ñu jaarale ko ci kuréel gi nga xam ne moom moo di euh, Junatun Liman Nazamaho ñoom nag ñu sant bu baax a baax sëriñ bi ci ni nga xam ne noonu leen taxawoo ci mbënn mi waaye nag ñoom ñu xam leen ne sëriñ bi fàttewul leen benn yoon ñu teewlu kàddu ñenn ci njaboot googu nga xamante ni utal nañ leen fuñ nekk ci kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci ñoom ngi sant bu baax di sant sëñ Mountakha mi ngi taxawu jullit yi waaw taxawu nañ wax dëgg fam ñu fekk fa ngeen fi ngeen ma jëlee wuute naag fi ngeen ma indi maa ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér yaram yàlla àggale ay naalam dund ba daal yàgg ñoo gunge daal waa Touba ci kanam tamit seen liggéey ci dëkk bi rafet na taxaw nañ askan wi kenn jaaxleetul ndax ñoom dëgg yàlla maa ngi leen sant di leen gërëm. sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi di sant Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi nag lool wax dëgg yàlla ndax. suñu ndëgër laay la te suñu wetil la waaw lii nag moom bi mu dalee suñ ko wax dëgg yàlla taalibe ñu bari jaaxle woon nañ waaye bi sëñ bi yëkkatee kàddoom xam ne ni mbiram la ba yëkkati chiffre boobu ci ay ci ci wàllu xaalis def ko ci ci lañ gën a santaat yàlla gën a santaat bu baax a baax te xam ni suñuy mbir moom dana dana faju situation bi compliqué woon na lool ndax ndox mi dugg na ci néeg yi dugg na ci kër yi yàq na toilette yi bagage yi yëpp ñu ngi ci biir ndox mi ñu sonn mais biñ leen contacter automatiquement ci suba même pas deux heures de temps def nañ ay réaction ba jëlee njaboot gi génne leen ci ndox mi indi leen fii nga xamante ni kër gu moxtaare la waaye kër gi daal tubaarkàlla moom tubaarkàlla ñu ngi sant bu baax mu nekk lenn ci kàddu yoo xam ne taataane nañ ko ci lenn ci njaboot yi nga xamante nii utal nañ leen fuñ nekk ndéegum ci jamono bi ngir uh, mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci seen kër yi ñu tàbbi ci ñaareelu pàccu xibaar yi ñu jagleel ko ganuk xibaar yi mu nekk Serigne Mourtala bokk ci commission administrative bu kuréel gi nga xam ne moom moo di junatun liman nazamaho nekk kuréel gi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké moom moo ko taxawal mu nekk kuréel goo xam ne nag dañ ko nos bu baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Touba mu ngànk Touba ca kanam ak Hizbut-Tarqiyyah ak commune bu Touba kuréel gi nag nekk loo xamante nii am na nuñ ko organiser loole lépp Serigne Mourtala Seye indi na ci ay leeral ñu ànd teewlu ko. sëñ Mountakha bi mu joxee ndigal li ba noppi ñetti kilifa yi nekk ci ñetti boppu mbooloo yooyu mu tudd dañoo daje daal di tëral li ñuy wax un comité de pilotage. comité de pilotage ñetti mbooloo yi kenn ku nekk joxe juróomi nit ñu mas a ànd kon doon comité de pilotage muy loo xam ne lu opérationnel la sur le terrain ñooñu daje ñooñu seenum daje lan la jur moo ñu tëral ay commission. yoo xam ne nag dëgg-dëgg terrain bi ñoo cee wàcc di ko joxe commission bu nekk tamit mbooloo mu nekk joxe ci ñetti nit ñu ma amassé ànd liggéey boobu moo tax ñu créé commission administrative mooy bi ma jiite commission boobu lépp loo xam ne ay acte administratif la lépp loo xam ne mooy accompagner yeneen commission la lépp loo xam ne jëm ci wàllu utilisation ñu war a teg la ba léegi bi mën a dem loolu de wàllam lépp luy convocation réunion lépp luy compte rendu lépp lu taxaw réunion bi ba sur le plan administratif dara du sooxe loolu commission boobu moo ko yore di ko def. mbokki gannoo xibaar gi mu nekkoon Serigne Mourtala bokk ci commission administrative bu kuréel gi nga xam ne moom moo di junatun liman nazamaho moom mooy ndar képp xibaar yi sant leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd gi ngeen àndoon ak ñun dig leen daje allah ci xibaar yoo xam ne dañ koy baaxee mu bàyyeekoo fii ci Touba ci mbënn mi lépp rek ñu ànd ko kuréel gi nga xam ne moom moo di junatun liman nazamaho wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an aajiki